bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu col xarla wi seen mbokk Alioune Badara Socé Sud seen rajo ci seen jotaayu tafsir mi defal bés bu jot ci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 ñoo ngi ci aaya 32 fi borom bi tabaaraka taala di wax ne bu ngeen moytoo bàkkaar yu mag yi ma baal leen bàkkaar yu ndaw yi ñu nekkoon ci di lim bàkkaar yu mag yooyu waaye ni ñu koy baaxu ji defee mooy jàngal ayaat loolu ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki auzu billahi min ashaytaani alladina yajtanibuuna kabaira alithmi walfawaxisha illa lamam inna rabbaka waasicu lmagfira huwa aclamu bikum is anshaakum min alardi wa is antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa aalamu bi man ittaqaa sadaqallahu al-asiim wa ballax rasuuluhu al-karim wa naxnu ala ma qaala rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidiin allahumma ijcal al-qur'aana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyaamati shafiica wa ala siraati nuura wa ila al-jannati rafiiqa wa baynana wa bayna sitran wa xijaaba wa ilal xayraati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wa wa karamika yaa karamal akaramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ak seen njaboot yal def jàmm ci réew mi def ci réew yu ko wër ci suratu an najm ngi ci suratu eh, an noo ngi ci aaya 32 waaye tabaarakallaahu ñu ngi jéggulu sëriñ seeg soxna yeeg ñépp rek ñu ngi ci alkabair bay mu du joxate bëgg xàmmee kabair yi ndax sunu borom nee na ku ko sa dossier defut pele del la yomb ku sa dossier defut kabair peledel la yomb waaw ñoo ngi ci kabira bu tudd sàcc asariqatu bàkkaar bu tudd sàcc bokk ci bàkkaar yu mag yi moom sàcc waaw bàkkaar bu mag la moom sàcc bind bi weesu dañoo nekkoon ci xulul mooy jël ci koom moo bokk ak ñépp kon ñaar yi am na différence sàcc ak xulul waaw bàkkaar la bu mag sunu boroom digge ca dagg loxob ki sàcc waaw dagg loxob ki sàcc xam naa léeg-léeg nit ni lan mooy sàcc sàcc mooy jël alal te bi nga koy jël dañoo nëbb alal ja nga nëbbutu jël ko alal joo xam ne bi nga koy jël ka ko moom yëgu ko bu dee alali mbooloo ña ko moom yëguñu ko sàcc bu dee shariatu islaamiya nun la koy waxe wuute naa kon bi weesu kii dafa jël ca koom mi ñépp bokk kii dafa ñëw dugg kër jàmbur jël ca moo tax lislaam wutal ko benn xadd xadd mooy ku ko def nii lañ koy def waaw ku ko def nii lañ koy def waaw mu ngoog lislaam dafa yoonal ci mbirum sàcc benn pen boo xam bi moom la tegal aj sàcc pen boobu nag léeg-léeg du ci dëppoog waa droit de l'homme waaw ak tey sharia yi ñoom du leen jubu waaw loolu nag ba demee ci alquran kero ba waa banu israil jaaxle ne musa udu na rabbak ba Muusa indee ne leen sama borom nee na ngeen rey dañ na ko ñun rey rey la ñuy lañuy la ñuy enquête nga ñuy reyloo lam la wax kon ma keroog mooy a'uuzu billahi an akun minal jaahiliin waaw sàcc lislaam daa yoonal ci texte ci constitution bi tudd alquran ca aayay fanweer ak juróom-ñett su ma jumul ca suratu almaida wassaariqu wassaariqa faqtau aydiyahuma jazaam bima kasaba nakaala min allah wallahu aziz hakim tey borom bi nee na waa te nag te nag maanaam kon dafa am àtt yi jiitu woon mu ne wa waxut assaariqu rek xanaa mu ne wa saariqu sàcc bu góor li tax nag mu ne saariq te waxut man saraqa wala man sariqa mooy nit mën naa sàcc te du feeñ sàccati te du feeñ sàccati lu feeñ waaye bu yàggee sàcc rek feeñ moo tax mu def ko <laughs> e, saariq waaw wa saariqa ak sàcc bu jigéen sàcc bu jigéen bu dee ci atteb mooy bi ñuy tuddee njaaloo ku jigéen ki la jiital teg ci ku góor ki bu dee ci càcc ku góor ki la jiital teg ci ku jigéen ki li xikmatin ilahiya subhanahu wa waaw naa bi suñu borom di wax ni nag am toll na jamono dañoo jàppoon ni jigéen du sàcc <laughs> loolu la jàppoon ni jigéen du sàcc ñu dem ba mu yàgg ñu ñu ñu gis ne aha kay góor ñee gën a bari ak càcc waaye jigéen ñaa ngi sàcc am na ci jigéen ñuy sàcc laa bëgg a wax wasaariqu te sàcc bu góor wasaariqa ak sàcc bu jigéen faqtau dagg leen aydiyahuma seeni loxo ñoom ñaar fii du waxut yadayhima aydiyahuma bu ndax lan bu sàccee dagg leen loxob ndeyjoor ba bu sàccaatee tànkub càmmoñ ba bu sàccaatee loxob càmmoñ ba waaw noonu lañuy toppe toppee sàcc bi rek waaw sunu borom àtte bii la ci atte muy benn pen bu am solo boo xam ne bii yàlla garanti ne na moo fi mën a jël ak sàcc waaw yàlla garanti ne na moo fi mën a jëli ak sàcc waaw sàcc baaxut sàcc baaxut léegi nag bu nu fi bàyyee luwaay sunu borom yi bëgg fee def luwaay yu ko wuutu bu tollut ni luwaay du fi jël ak sàcc mhm. ñu ne sunu borom lu tax ñuy dagg loxo bi mu ne jëza am bi ma kasaba loolu mooy fayuk liñ def jëza am bi ma kasaba sunu borom ne loolu mooy fayuk liñ def rey lu tëj lu dumaluwut daa daggalu sunu am ne maa moom jaam yi moom leen yéen reylu woo ma leen ko sàcc dumoo dumaloo dumaloowu leen ko ko sàcc déedéet tëjloowu ma leen ko it déedéet li ma leen sant mooy daggal leen ma loxob ndeyjoor bi ci fi muy takk montre jasaa am bi ma kazaba ñu ne ah mu ne nakaala min allah mbugal la mu yàlla ak teg ci kawam ndax daa jël alali jàmbur wallahu aziz mu ne yàlla nag mooy ki sañ xakim mooy ki mën a atte fa man ku bàyyi càcc <laughs> fa man taaba ku bàyyi càcc dagg nañ loxo ba mu bàyyi càcc waaw fa man ku bàyyi càcc min baadi zulmihi ginnaaw bam daan sàcc waaw waaw na ma sama ustaas bi baal eh, su ma firee baat yi noonu mu ne ma dee ko firee ni ñu koy firee mu neew daw sonn famantaaba kutub dëgg la noonu lañ koy waxee min baadi zulmihi ginnaaw ba mu tooñee loolu loolu la ñuy primi waaye famantaaba ku bàyyi càcc min baadi zulmihi ginnaaw ba mu daan sàcc xaaj Ibrahima saaxul daan ko firi noonu bu demee ca tawil ba su ko defee euh, mën naa am mu gën noo jege waaw tubaarkàlla oustaz jërëjëf fu man taaba ko bàyyi càcc min baadi zulmihi ginnaaw ba mu daan sàcc agresseur la di sàcc bam mu yàgg mu bàyyi sàcc daal di tuub sàcc ga wa aslaha wa aslaha mu delloo lam sàccoon mu delloo lam sàccoon fa inna allaha yàlla yatuubu alayhi dana ko baal inna allaha yàlla xafoorun ku bari sutura rahim te mën a baale waaw ku bari sutura la rahim ku bari yërmande la yàlla na nu yërëm yàlla na nu nun ñépp nag yàlla na nu moytu daw ko eh, beneen tomb professeur ji bi ci sàcc maa ngi ci suuratu najm aaya 32 allazina yajtanibuuna kabair al ithmi wal fahish illa lamam inna rabbaka waasiul maghfira dafa am yoo xam ne mooy daje ci ak càcc ñu dagg loxob ki sàcc bu yooya manqué du ñu dagg loxoom sharia nag léeg-léeg gaa yi wax ko ci pénc mi ne day day rey day dagg loxo déedéet ka muy rey dafa am charte yu ci tëral ki muy dagg loxo mi daa am sartum ci tëral waaye xëy nag daggi loxo ndax état bi lislaam ñàkk liggéey du tee am xaalis état bi lislaam ñàkk liggéey du tee am xaalis ndax état bi lislaam dana ni euh, maanaam état lii bi dafa niru woon état bi lislaam même su fekkee doonu ko mooy ku dëkk ca kër dëkk ba ca réew ma da nga am kër goo dëkke hmm? ku dëkk ca réew ma boo liggéeyu te da nga am luñ lay jox bu bu weer deexee étape islamique noonu la par exemple tey bu ñu ne woon ku liggéeyut ku ne bu weer dee da nga am cinquante mille ñu liggéeyut ñooy am cinquante mille waaw xalaat boobu boo ko boo ko joxoon tey ñoom Ablaye Ndiaye marchand ambulant yàlla na ko yàlla yokk wér <laughs> suñu waa ju baax jooju waaw xalaat yooyu muy dugal ci ci wax waxtaani fajar yi te di ko analyser yu pertinente la tabarkalla yàlla na ko yàlla yokk wér waaye gis nga eh, Ablaye Ndiaye l'islam ñëwul rek nañ dagg loxo yi l'islam koom mi réew mi am day dellu ci réew mi lu jiitu pétrole ak gaz ndax pétrole ak gaz ngi ñëw waaye tubaab yaa ngi bëgg a def lool duutuñu soxla pétrole ak gaz balaa loolaa ñëw nag yàlla nañ jot ci suñ pétrole beeg suñ gaz bi <laughs> di tànk di jaay waaw kon bu dee lislaam comme mi penc mi am ñépp a ci gis seen bokk ñu liggéey ñu fay leen lu baax ñi liggéeyut weeru jot ñu am cinquante mille awaw jànq ji sëy góor ñi ñaareel ñi ñetteel <laughs> ami doom tool yi yaatu ca sortu noox la ko suñu borom wax yàlla nañ ci àgg ak jàmm ci tafsir maag yéen ak imaam Abdoulaye Ndaw mu la ca ndànd la jiitu ci charte yi tax ñuy dagg loxob sàcc mooy sàcc bi mag la sàcc bu mag hmm? waaw waaw sàcc bu doon gone ay dix ans ak douze kenn du dëgg loxoom déedéet waaye ndeysaan soxna sa doom ja daa sàcc mu teg loxo ba ci ànd wa soon naa dal kenn ci Louga ndeysaan soxna sa ah, génn góor benn inspecteur enseignement français waaw mu jël loxo doom doom ja teg ko ci ànd wa mu lakk ndeysaan ba màggee ndeysaan moom gone googu wut liggéey teg tekki bàyyi wuccoon ab léegi nag mu ne ko bàyyi yaa baax ndeysaan <laughs> loolu ca Louga benn événement la woon mu ne ko bàyyi yaa baax keroog ba mu jëlee yëfi jàmbur nga fab sama loxo ba teg ca taal ba boo ko defutoon jëlkat lay doon te su ma nekkoon jëlkat keneen lay doon ku dun kii ma doon bàyyi da di xëm nun ña ko fekkoon nun ñëpp nu xam ndeysaan waaw atteb lislaam nun la mel kon ki ñuy dagg loxoom day nekk mag waaw ñaareel ba li muy sàcc fekk dañ koo dencoon ñaareel ba li muy sàcc fekk dañ koo dencoon waaw ndax yónnente ba la mu waxoon waaje yeewal sa gëléem gi door koo dénk yàlla nun la ki def portable am ci poosam ñu jël ko kooku dañ koy jàppe sàcc ki teg portable am ca ca mbedd ma ñu jël ko ka ko jël duñ ko jàppe sàcc da ko for lañ koy tuddee moo tax lu ñu denc nëbb ko la lislaam di wax ku ko jël dangaa sàcc mbokk yi ci sharia ñaara ngoog de mooy ki sàcc mag la ñaaral ba ki sàcc lim jël dañ koo dencoon ñetteel ba mooy sa càcc gi mooy dafa nëbbutu bi mu koy jël sàcc bi dafa nëbbutu bi muy jël lim sàcc juróomeel ba subaha du ci am subaha mooy njaxas moom la du moom moom la du moom du ci am juróom-benneel ba day nekk alal joo xam ne juñu ormal la ci lislaam ku sàcc sàngara jullit bu sàcc sàngara kenn du dagg loxoom moo xam ne lañ ko tey <laughs> wala wala ay mbokkam wala ay mbokkam sàngaraak mbaam xuux ak dorog ak yu ni demee sàcc bi ko sàcc kenn du dagg loxoom waaw bi ci tegee mooy sàcc bi kenn forcé wu ko ci mu sàcc dara forcé wu ko ci mu sàcc moom tam kooku mooy sart beneen beneen sart bi li mu sàcc day mat nisaab li mu sàcc day mat onze mille cinq cent wala ci ci ci ci anam googu loolu boo demee ci ñoom Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñoom ñu jàngoon économie yàlla yàlla sàmm leen ak docteur Abdoulaye Lam ak Serigne Babou mala ca mbuur dala ko yàlla yokku wér nit ki dafa sàcc mille francs lislaam ne ah moo xam dafa sàcc cinq cinq mille waaye bu sàccee onze mille cinq cent te sart yi ma njëkk a wax bokk ca kooka la ñuy dagg ab loxoom hmm? waaw tabarakallah Eh, nu ñuy xamee ne waa ji sàcc na <laughs> nu ñuy xamee ne waa ji sàcc na dafa am ñaari mbir yoo xam ne ci càcc mooy am ñu door a xam ne waa ji sàcc na la ci jiitu mooy al iqraar waa ji reconnaître ne moom sàcc na loolu bi ci jiitu waaw loolu mooy bi ci jiitu waa ji nangu ne moom sàcc na ñaareel ba mooy ay seede ñaar ñu maandu ñaari góor ñu maandu wala genn góor ak ñaari jigéen ñoo wane ne effectivement kii sàcc na mbokk yi maa ngi ci suratul najm maa ngi ci ayu 32 maa ngi ci benn kabira benn bàkkaar bu mag bu tudd sàcc bu tudd sàcc waaw léegi dañuy teg att bi ci moom waaw bu fekkee ne sart yi ma wax yépp daje na waaw dañu daldi dañu dagg loxob ki sàcc fi muy takk montre waaye loxob droite ba la dagg faj ko nag bu njëkk nag buñ ko daan faj mooy buñ ko daggee bu mu xëm dañuy jël loxo ba def ko ci diw gu sens waaw mu mu ñu rosi loxo ba ëw waaw wacci ca kuuñ ba wacci ca kuuñ ba ndax buñ ko defut deret ji ñaare daf dul daf dul taxaw ndax fiñ dagg veine yi loolu day tuuru deret yu bare bari moo tax borom xam-xam yi médecin yooya nekkoon ci jamono yooya wax ne nañ sóob loxo bi ci diw waaw diw gu tàng allahu akbar musul borom lu tax nga ne ko sàcc ñu dagg loxoom ban philosophie moo am ci dagg loxob sàcc lu tax ñuy dagg loxob sàcc mooy dañoo bëgg sàmm al al amwaalul amma alal ji ñëpp bokk lañ bëgg sàmm ndax alal xiyaaman linnaasi te kii sonn moo war am sañ-sañu tedd ci alalam ku tëddi nelaw ba guddi mu ñëw jël alali jàmbur kooka loolu mu def day yàqum réew day biime am réew day biimem penc day tayal loolu nit ñi noonu nga xam ne réew mu bari carte ñëpp tayal réew mu bari kart ak garam place ñëpp ay tayal waaw kon al muhafaza alal amwalil amma looloo tax ñu ne nañ dagg loxo ku sàcc ndax li eh, alal alal ji lañ koy eh, alal ji lañuy bëgg sàmm ñaareel ba ci li tax ñu dëgg loxob sàcc mooy dañoo bëgg a tiitloo yeneen nit ñeneen nit ñi ci ñu bañ a def ni moom ndax ku def ni moom dañ lay def niñ ko def waaw ñetteel ba ci li tax ñu dëgg bu sàcc sàcc léeg-léeg day gàddu ngànnaay pour rey nit jëllam am waaw léeg-léeg mu am penc moo xam ne bu nit jëlee ngànnaay bëgg laa rey boo ko reyee kenn du rey ci lislaam waaw tubaarkàlla légitime défense lañ koy tuddee defe naa ne waaw alayhi salaatu mi yàlla yónni woon dafa waxoon ci hadis man xamela man xamala alayna silah fa laysa minna wa man xashana fa laysa minna mu ne ñaari yëf ni yoo xam ne ku ko def bokkatoo ci ñun ku gàddu ngànnaay bokkoo ci ñun ku ñuy nax bokkoo ci ñun waaw bokkoo ci jullit yi ab jullit du gàddu ngànnaay jëm ci moroomu jullitam ab jullit du du nax ay mbokki jullitam di leen jaay lu baaxut mhm. eh, lenn ci nit ñi ci beneen tomb bi li tax ñuy dagg loxo ku sàcc dañuy am feebar feebaru xel waaw euh, ci li ñu jël seen yëf léeg-léeg nit jël sàcc yëfi jàmbur loola wal bëtim xelam xam nga sàcc ba demoon dëkk sàngam fekk fa euh, sa sàmb muy kopp-koppal ba am ñeen fukki nag sàcc ba ñëw yóbbu ñeen fukki nag yépp kooku su fekkoon amutoon lu ci lum toog ci wàllu imaan ci wàllu yaqiin walla yu ni demee kon nëga kenn waxatu ko ma ci ca mbedd ya e, di di sàmm di sànn xeer yaag yu ni demee beneen bi te ci li tax ñuy dagg loxo ku sàcc mooy ñi nga xam ne ñoo ko bëggoon a def métier suñu xamee ne ku ko def lii lañ lay def ñépp koy teg ci suuf ndax suñu borom moo ne walakum fil qisaasi xayaatun mbokk yàlla na yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla na yàlla musal ci bàkkaar bu rëy bi mu di bàkkaarub sàcc alayhi salaatu salaam nee na eh, wala alquran nee na assaariqu wa saariqa faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakaala min allah wallahu azizun hakim borom bi waxaat ci hadis boo xam ne bi jiitu woon na ca bi ñu toll ci kabira fukkeel laa yazni zani xiina yazni wa huwa mumin wala yasriqu saariqu xiina yasriq wa huwa mumin walakin attawbata maaruda alayhi salaatu wasalaam nee na aji njaaloo ji jamono ji mu koy def gëmut aji sàcc ji jamono ji mu koy def gëmut mu ne waaye tuuba ngi fi di leen xaar ñoom ñaar ñépp waaw di leen xaar ñoom ñaar ñépp walakin tawba maaruda maa ngi ci suuratu najm maa ngi ci ay maa ngi ci kabira bu tudd sàcc di sàn sàcc cëtëtëtë waaw sàcc sàcc nag bala ngaa nangu ñu dagg loxoom daf la ko def <laughs> yàlla xam na ko bu la sàcc sàccee sàcc métti sàcc métti waaw fàtteegu leen moos sama ordinateur yi waaw fàtteegu leen moos sunu xaalis yi waaye sàcc métti waay yàlla ndal daal musal ci càcc waaw un ordinateur ba mooñ ca dara rek waa ji jël dem jaay mu ne mu yën waaw juróomi ordinateur ndeysaan waaw ñaar yu mag ak ñett yu ndaw yal na ma yàlla yërëm <laughs> dooro sàcc bon waaw boo ñëw ci kër gi rek ndeke sàcc bi dafa am sunu caabi yëpp la am bu nu xëyee ba dem rek ajjuma defi émission rek mu ñëw ne jànq bi may ma may ma ndox mu tàng ma ndékki jànq ba dem marché rek mu ubbi ci ay la moo moo moo ma tee parking lu ma dajal rek ndeysaan nguur sa jël ko rek ci ay la yàlla na ma yàlla yërëm sàcc métti doro sàcc rek métti waaw yàlla bu ñu leen dal keroog ba ma wàccee tileen ndey ma wàccee kolobaan ndeysaan di dem tileen jógee jóge Louga <laughs> téeméer bañ ma mañoon noonu lañ ko def ndeysaan waaw xam nga kuy sàccub téeméer moos ah seet eh, ci bunt boobu jële nañ ci Abdullah ibnu Omar radiallahu anhuma mu ne yonente ba alayhi salaam xataa fi mijanni xiim fi fi fi mijannin xiimatuhu salaasu salaasu drahim ne na sàcc na ci loo xam ne valeur ba ñetti dërëm la su ne Aïcha radiyallahu anha nee na moom tam rubu dinaar la yonent bi daan dagg loxo mbaa lu ko ëpp onze mille cinq cent jëm kaw mooy da onze mille cinq cent jëm suuf daawu ca dagg loxo salawatullahi wasalaamu alayhi moo tax mu ne laa tuqtau yadu saariq fii ma duuna thamanil ma jin ak këf la woon gu nekkoon ca e, seeni jamono valeur u rubu dinaar ñu koy natte fii ci ñun onze mille cinq cent defe naa noonu la bu dul noonu ngeen jubbanti yéen ñi nga xam ne xam ngeen naka la mu tax dañuy waxoon suñu yaa Aysa waaw almijannu mooy lan mu ne rubu dinaar waaw iqtau fi rubu dinaar wala taqtau fi ma duna dalik alayhi salaam mu ne un quart dinaar dagg leen ci loxo su ko mooyee bu leen dagg loxo ndax ku ñuy dagg sab loxo ba faw war naa am lu tax waxoon naa ko nag ca bind ya ca tafsir ya ba may nekk rajo dunia maak ñoom Cheikh Ahmad Tidiane bi tey sama gaa yooyu ndeysaan ak ñoom tafsir Thiam ak Baye Tuuti ak ñooñ tubaarkàlla ma ne lislaam bi ne nañ dagg loxo bu aji mook médecin bi ne nañ dagg loxo bu aji ñooyam ndax médecin bi day gis ni kii yaram bi daa am suukar ba loxo bi am na lu ju sikk benn ñu dagg loxo bi walla jëmm ji faatu ay bokkam fay médecin médecin ba dagg loxo waa ji ba noppi ñu neexal waa ji dagg loxoom ba noppi remercier ko waaw léegi nag nangul nañ ko docteur bi waaye docteur bi ñu tuddee charia moom nanguluñ ko ko te ki sàcc cëram boobu nga xam ne ci la jëlee lim jël cër bi baaxut bokkutut dañ ko war a éliminer moo ki moo ki euh, cancer loxoom cancer wala mu jabet ñoo bokk yem waaw yàlla yàlla saafara leen yéen ñu jabet wala mu woyefal waaw lu am solo la mu nga kon dagg loxo du ay caaxaan ci lislaam di def waaye daa am fu ko tëral ak condition yu mat sëkk door nag di dagg loxob sàcc waaye waaye sàcc si nañ bàyyi sàcc waay waaw nañ bàyyi sàcc waay waaye bu fi jaasi lislaam nekkoon di léegi te ku mu neex fu la neex teg sa yu bagaas laaj ko yaayaa jàmme ndeysaan ca Gàmbi waaw yaayaa jàmme ca Gàmbi ba mu tàmbalee di appliquer yooyu waaw rek yu baree bare faju fa ñu jële ci abu hurayrata radiallahu anhu mu ne euh, yonente ba alayhi salaam daa wax ne laana allahu saarix allasi yasriqu albayda fa tuqtau yaduhu wa yasriqu alxabl fa tuqtau yadu mu ne yàlla bu yàlla yërëm sàcc bi sàcc ban mu ne sàcc boo xam ne xeebut ab nen dem sàccub nen bañ dagg loxoom kii vraiment mu ne kii daal yàlla na ku yàlla rëbb waaw ak ñàkk solo sàcc buy sàccub nen waaw walla sàcc buy sàccug buum sàcc buy sàccug buum am na ci réew mi nag sàcc ñu tuddee tafu tafu tafu dagg poos ak yu ni deme waaw dagg poos yu ni deme waaw lu am solo la léeg-léegi nit nekk ak sàcc mu ne sa biir njaboot te boroomu njaboot ci wàllu yar noppi ci yenn yi moo gën di wax yenn yi boroomu njaboot ci wàllu yar waaw ba sunu benn suñ jenn doom njëkkee gis kiy jël sama bagaas yi ka ko daan jël bopp daf ni ma am na ko ma fekk sa néeg day mu yor nangam ba ma ne ko teg ko fi mu ne ma sàng ma sutura ma ne ko kon nag sàng ko sutura mu ne ma wax la ko ma ne ko déet kon sàngatoo ko sutura di ah lim jël nag ma ne ko tey <laughs> sax yàlla yellu yàlla waaw bi muy jël daa am ko ko fa fekk ci njaboot gi mu sukk ne ko sàng ma sutura tey sax ma ne ko sang ko sutura mu ne ma wax la ko mu ne ko déet boo ko waxee sàngatoo ko sutura di yow kay xam nga ko mu ne ah, mu na ko boo keneen xam ku dul yow ndeysaan waaye xam nga rek ginnaaw la islaam saarix la wax boo ñemee mu neex dangay ngay si waaw te bu la kenn ci njaboot gi gisee ni la kii gisee bu deful sago ni kii rek euh, ne diwa waaw ne diwa waaw lu métti la yéen ñiy déglu fi ne ku ci nekk am na ci bis bu jaar boo xam ne tabaarkàlla <laughs> waaw dugg ci oto rek wàccaale poosub neen waaw dugg ci oto rek wàccaale poosub neen bàyyi sa bunt rek nit ñëwul ubbi jël sàcc baaxul de mbokk yi baaxul cim réew baaxul ci kër baaxul ci koñ baaxul ci dara sàcc baaxul moo tax ci kabaayir yu la bokk waaw ci kabaayir la bokk boo demee ca mu arrixul islaam al imam al xaafis shamsuddin azahabi bind na ci kabair tudde ko kitaabul kabair moom la def kabirab ñaar fukk ak ñett mu di sàcc caay wàjj la nga Eh, am nañu ne nag nen boobu ñuy wax mën naa ñàkk nekk nenub ganaar ca waxinu démb ya am ñu ne buum nga mën naa ñàkk nekk sunu buum yii ci waxin ngoog sunu yaay ja Aïcha radiallahu anha mu ne maxsu maxsumiya kero ba maxsum ya sàccee te mooy jànq ba sàccoon caq ga te daan àbbu caq buy dem cim xew da ñëw rek nogay alma sa ceen gi wala nogay alma sa torsaat bi wala nogay alma sa caq bi wala alma sa téléphone bi mu woote yu mel noonu waaw na waaje defoon Xadija ndeysaan <laughs> Xadija sama doom jële ca sa prime yow waay ndaw ne ko sa papa laa bëgg jot al ma téléphone bi moo woo ko rek mu jox ko waaj ne mes <laughs> c'est al ma sa papa al ma sa mu woo sa papa rek ndeysaan Xadija jox ko waaw waaje naan allo waaw fii daa amal réseau bu génn rek ne fes <laughs> ndeysaan <laughs> mu waaw ni ma papa dañoo sàcc sama téléphone ma ne ko massa ndeysaan rekk mu jeex eh, yàlla nu yàlla yërëm suñu Aysa nee na maxsum ya daf daan àbb bagage yi jigéen ñi seen takkaay yi ba benn bis mu àbb ca bu seer daal di koy sàcc dem jaayi ko daal di ñëw toog bu ñu yëgee ne moo ko sàcc ñu délégué Usaamatu bnu Zeyd ndax yonent bi daf ko bëggoon bëgg baayam ñu ñu ñu délégué ko nag pour mu wax ak yonent bi ci Maxsumi mii moom euh, néeg bi mu bokk waaw ci yax bu dëgg yax bu rëy la te nag sàcc na <laughs> kooku daal ñëw ne yonent bi ah daa xam la la am lu xew de mu ne waaw lu xew ñu ne ko Maxsumi de moo sàcc ab caq ñu bëggoon nu ñuy def ba ñu baal ko seete di alayhi salaam bilaal noddal mu noddu jàkk ja fees del yonent def benn conférence de presse yaa usaama laa araaka tashfau fi haddin min hududillah usaama na mujj tey ngay intervenir ci càcc hmm? usaama yow laa wax mujj tey ngay intervenir ci càcc yaa usaama laa araaka tashfau fi haddin min hududillahi taala aw mujj tey ngay intervenir ci càcc dégg nga li ma la wax Usaama di lox ni su yëgoon lii du ci dugg mukk su ma xaama ne bi yonte ba jóg taxaw xatiiban ma ngay discours ma ngay xutba mu ne innama ahlaka man kaana qablakum annahum kaanu isa sariqa fihim sharifu tarakuuhu wa isa sariqa fihim daifa qatacuuhu walladi nafsi bi yadi law anna fatimata binta muhammadin sariqat la qataatu yaddaha fa qataa yadd al baxzumiya waaw yonent bi bi mu waxee usaama wax ba noppi daf ne ñi leen jiitu woon la leen alag mooy problème mu atte atte ba daf daan wateeg taxas wet ku ñu xam mu siiw bu sàccee tarakoowu ku ñu xamut siiwut bu sàccee xata oohu mu ne leen maa ngi giñ ci yàlla mu yor sama ruux gi fatimate mii doomi muhammad fii nag nee naa suñ bàkk si la waxu doomu rasulullahi déedéet déedéet doomu muhammad dafa dindi risaala gi wax ci turam moom ci boppam ndax wane ne kii fatima mii su jëloon nii may dagge loxo ndaw si lay dagge loxo hoho mbokk yi attee ngoog bis bu doxeek wedd rek yàqum pénc atte bu amee par parloo yàqum pénc waaw moo tax magistrat yi avocat yi euh, attekat yi juge lu jara bàyyi xelawu noonu fu mu pénc yàqoo rek innama ahlaka man kaana xablakum jërë ngeen jëf ci ànd bi ci Sud FM seen rajo